kulihat wakil mbokk jotaay bi day dafa yokku waaye du fi gan ndax oustaz bi ngeen gis ne jamono bu may tànn sama taat yi wër yenn saa bu 31 décembre mu tàng jot maanaam ci këram bii lañ doon làng di ko waxtaan mu guddi fële ca Passy tamit ci école boobu maanaam fa laa dëkkoon ak ay jafe-jafe yu dul jeex mu ànd ceeg man ba fi may wax ak yow nii. Ah, kon affaire bi dafa avancé wa loolu mooy li nga xam moo ci nekk waaw loolu la incha allah si leen ko bu baax te dama lii rek ah ah yeneen wa yi waroon defaree saako yëpp yëpp gis nga ko affaire baa ngi waaw lii mooy si li dox bu fan yi rek waaw loolu la incha allah ci suñu voyage bi rek. ci leen yàlla rafetal li xoolal muy nii taw lépp seen bopp lépp jaam yàlla ñoo ko tudd waaw loolu la ñu tàll dafa de wala bëggeen bi borom jàng ak jàng ah c'est ko ak lan yu yi nga xam ne mooy lamu joolaay nga xam ne lan yu ñu waroon tabaxee euh, kii yëpp gars yi takk seen ko wala mooy li